Gambie mi nga xamne ben président moko jité won pare na benen président ñëw wara taxaw mu am lam ca bañ ciow li dana bari nak way nak ñu altu wat ne nit boy wax waxal lo xam man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakhul khayran aw liyasmut fi duñ fi taxaw am ku ñuy faral wala am ku ñuy jëlal paar ci lenn dedet kum man ti doon ci adina

nga bugg koo coup d'état doo ngay coup d'état ka nga xam ne jëloon na mbir mi ba mu fa nekkulee ba mu fa nekkee ndax mën nga koo foqati ay yoon yoon ñu jéem ko mënul nekk ñu ñëpp ci Afrique ñu wax ne nañu gëm yàlla nañu muñ nañu ñaan yàlla ba yàlla teggi ko ci jàmm yàlla teggi ko ci jàmm ci jàmm bi pareegul ñu dugalaat suñuy loxo te alxuraan laa tufsidoo fil ard ku nekk di wax ku nekk di commentaire nañ ko rey nañ ko jàpp nañ dagg tànk yi nañ dagg nopp yi nañ dagg baaraam yi nañ ko nañ ko def ni te moom moo yor la ñuy daggee mu toogaat jëlaat toogaat toogaat wax bu bëri baaxul te yàlla dana la defar mbir ba pare nga am ca ndam ba noppi waaye nang ko koy yëkkatee mu yàqoo foofa waaye yal na defal ñu jàmm fi ak foofa munuñ cee ñàkk wax kon li ñuy wax mooy na ñëpp ñaan jàmm am fa te commentaire yu bëri yi ñuy wax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 kenn ku ne ak jëfam kon yow tam ak sa jëf tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum bàyyi commentaire yu bëri bay wax yu bëri yi ca ñaan yàlla jàmm si suñu réew te gàm bi bu amee fitna il faut que Sénégal am fitna boo toogee fii ci biir Ndakaaru nga ne bañ la xew la lu sama yoon nekku ci sa mbokk yi di dee bés dana ñëw nga jóge fii pour dem bu ñu rey sa ndey rey sa baay te ñu nga am la wala ñu nga fas wala ñu nga ca ca falé ca ca kalifin noy def da da ngay tok kon nañ ñaan jàmm jàmm mo ñu jik yalla ñu am jàmm ki nga xamne mo fa nek bëpp réew ma di yaayaa jàmm di ko wax ne yalla la falon nit ñi taxaw nañ benn soxlaatuñ la demal jeex na te nguur kën du ko ñedd boko ñedd ñeddee rek dana am lu ci gaaj ñi nga xamne ñoko doon def pour jema a langaamu bag mu ngi fi yoon anamu rola bag ca Côte d'Ivoire mu foogoon ne moom lépp foog na du mës a daanu daanu na dem na Kadhafi ba bi ko xale jàppee mu ne man antum man antum yéenay ñan te waxoon na danaa jàpp janax yi ci biir dëkk bi fekk leen seen biir di pax kon mbir mi mbiru yàlla waaye yow mi nga xam ne bokk ko foofu itam santal yàlla be doo président ndax nekk président lu jafe la ñuy wax suñu bos nag président Macky sàll mu doxalee xel ahakaay na doxalee xel bu mu doxalee xol bu mu déglu kenn na xol digganteem ak boromam te mu fexe jàmm am ndax tey ji réew yi nga xam ne ñooy réewu international yi ñi nga xam ne ñoom ñooy tubaab bi yor doole bi ci àdduna bi te ñoom ñooy jàppaate ñoo am seen tribunal yóbbu la pour juger la en tant que président te foofa sax dara néew fa ndax ba léegi suñu fa tubaab benn tubaab moo fa nekk muy ki nekkoon Bosniak Bosnie Herzégovine ban tubaab moo fa nekk boo fa demee tey président yu ñu jàpp yëpp ñu ñuul lañu africain rek lañu kon loolu war na ma tax ñu africain ñu gën a taxaw suñu bopp gën a xam suñu bopp tubaab bi ñu ko kenn di ko jàpp ñii gën a def ci lu bon ci adduna bi nekk ay tubaab kenn jàpp leen ñu ngay dund ñii dee nañu dara dalu leen waaye ñun africain nag ñu commencé danañu ndax façon ndax bu ne ndeysaan yan nañu yeewu yan nañu yeewu yan nañu yeewu waxuma yan nañu muus waaye yan nañu yeewu te yal nañu yàlla sàmm te yal nañu yàlla aar mbokki julliti président Macky Sall na doxalee jàmm digganteem ak Yaya Jammeh digganteem ak Gambie bu fi bal takk bu fi fetal wax fetal duy wax te lépp lu fetal di defar gémmiñ mën na koo defar